وتسليم على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

soo waxatee yàq danga koy déglu waaye boo dee wax muy wax ñaari wax lay doon du am njëriñ ustaas mi ngi lay nuyu di leen ziyaare gisee ni sax nga ñuy akolaatee dangaa mujj jigéen ñi ay rongo ndax xam naa ni yërëm ñu rek ak ñeewante ñu rek waral loolu mbir mi dafa waaye yàlla baax na gannaaw dañ noonu fi amee mu amee fii rek baax doy na ku fi amee amin doy na tabarakallah bu ko ini gàmmu sadamun. ne oustaz sa di suñu borom dugal ci oto ma ñëw dajaleeg yow nga waxtaan ba pare ma ñibbi man yàlla bindeewuma woor bindeewuma jàpp bàyyi bindeewuma waaw ji man tamit beneen kër la ndaw ñi nag moom li ma leen di wax rek mooy na ngeen góor góorlu te gis nga réew li fi nekk ak su bon buñ ko yàqee ki fi nekk bu fi jógee ñëw dana sono kii ñëw dana sono trop pour rattraper yi nga ñuy yàq kon nañu xam ne li ñu moom ñun ak li président Macky moom nañu ko xam li nu moom nañ ko aaral suñu bopp li président Macky moom nag bu leen neexee yéen a tax waaye yàq baaxul li moom nanu ko xam ni ak li président Macky moom président Macky li mu moom defe naa nag ah, li mu moom bëriwul ñu xam ni parce que tataayee xosan yeeg total yeeg yëpp alalu jàmbur lépp alalu jàmbur du alalu mag kon ngeen góor góorlu ñi ñi yoon jakarta nañ góor góorlu rek jakarta boo ko yoree ci sell la mën naa booba Jurbel ak Jakarta nga dem a fat jënd oto ci oto bi nga nga dem a dem a dem ba am benn oto dem mu di nekk transporteur ne man Jakarta laa commencé woon mu ji nekk kon lii góorgóorlu bañ a yàq Jakarta ku ko yor oto yu gën a gaaw am na oto xam ne bu jëppaaree ci waawoon jëm si Thiès Jakarta mën naa dikku yéenuwaat demaat dikkaat demaat dikkaat ba maar day taal nga baal way sëñ baal leen eh baal way jub dégg loolu Jakarta mën na ko su ko defee yéen buur bañ a yàq seen Jakarta yi ngeen yore ngeen bu baax di ko raxas comme sa avion jamaa seen jakartaay comme ku yor avion jamaa parce que nga am di buur waaye boo xeebee li nga am nag di baaxoon ku nga am rek di buur ci jakartaay yi ngeen am maanaam alhamdulilah rabbil alamin rafet mën naa daw ku ngeen ci parce que am na nit ñoo xam ne bu ngeen leen sësee toj seen yaakaar yàqu waaye ñooñu da ngeen leen ñu bëgg xaalis ñu leen ñu jéem a dugg ci oto yi moo tane ci ñoom waaw ngay jaay mu bëgg xaalis mu yaa ko loolu lépp ngeen bàyyi ko ngeen góorgóorlu lu baax nangoo liggéey ku ne Sénégal am na liggéey Sénégal am na liggéey parce que liggéey boo xeeb rek moo fi ne Sénégal yi jóge fii di dem Europe la ñuy yan di ko jaay par bés bu ko wàccee nga defe ne ci mbaam lañ la ko toog billaay yi da ngay defe ci mbaam lañ ko sësoo te nit dafa yenu mais bu ñu ñëwee fii nag di tiitoon du tiitoon yàlla ko fële na nga nangawu liggéey la ngay def fële boo defee fii am li nga fële waaye bu ko def soo demee fële nag ba nga xam ne ñàkk nga pexe gis naa benn waay euh, mu nuyu ko fii defe ne xam ne maa ko mu ngi bale ci benn dugub loolu ci nëbb ñàkk ñu fay la amul ñu ko yëpp jàmbur bëgg a moom moo jar nëbb waaye ñu ñàkk ñu fay jarul nëbb parce que loolu ngor ngor gore la waaye li goree di kay mooy jël alalu jàmbur bëgg a dawal moom mu ngay bale baax te kat ñu toog man mun naa la man si man maa nekk place maa ñëw maa ñëw dana ko wax far may yóbbu ñu ci waxoon rek yem ci moom maa ngi sama oto loolu la nangu liggéey rek gis nga mbindaanu la bul yàq di nga mbindaan li nga gis muy dem gardien li nga gis muy dem é a ci yem ñoom président bi ñoo yem dañuy tey liggéey rek ñu é, ñëpp liggéey kër mbindaan la dañ é fay dañ koo bind di ko fay président presidente Sall dañ koo bind di ko fay ñëpp a bee dafa gën a kawe rek ba dafa ëppale bii gën a néew waaye bu gën a néew bu góorgóorlu dana dem ca ni mu gën a parce que góor góor ni ni ci ngeen yore bu leen topp kenn bu leen yàq bu leen foye seen am leen personnalité am leen dignité bëgg leen seen bopp bëgg leen seen bopp loolu ma wax leen ko ngeen bàyyi ko gis nga ñun bu fekkoon politique am na njëriñ kii wax naa ko ko ci démb yi ñu seen si may leen Oustaz Alioune Sall ma neexee musuma dégg mu wax safara te yéen ñi kenn dégg musuma dégg Oustaz Alioune Sall wax safara ci benn sisi musuma gis ñu laaj mu wax safara day day day day toll la rek parce que loolu nit parce que politique nga topp leen boo ëllëgee ñii daan léegi nooy def ki jóg te xasal sa xaste moomul wala moomul wala moomul wala moomul da ngay fexe rek équilibre sa kàddu bul xas kenn bul xas kii bul xas kenn boo góorlu ci li nga ne gis nga ñun suñu gàmmu yi sant yàlla li ñuy sant yàlla moo di xam nga euh, projet man euh, Adji Sarr ak Sonko xam nga mu ngi nekk le trois le trois la ñu ngi yóbbu leneen tubaab ah. fekk nañu ñu gàmm ba yow waaw ah loolu loolu ci ne fekk nañu ñu ñu gàmm ba le 23 fekk nañu ñu pare ci lépp waaye produit boobu itam naa leen jox la nañu ko àtt bu jeex nit ñi bàyyi coow yi dellu ci coow liggéey nañu bàyyi coow dellu ci liggéey parce que bis bu jot aji saar sonko nit dee ba bi la gën a nag aji saar sonko nit dee loolu ba kañ ki wax nañ leen bu dee ci charia ah bu dee ci charia amaguñ fi condamné sonko sariya laay wax man nag ci sariya laay wax loo xamante ni seen àtte amul fenn fuñ ko mën a condamner mais c'est ça parce que seeni yu maanu lañ la yu maanu nekk góor nekk jullit bokk fu ñu jógee ñoo ko gisandoo kër ngeen wële fii mu këlëti comme kuur koo fekk ci biir kër noonu fekkee mu awraam ne ci biir awra ndaw si ñeent ñii ma la wax gisandoo ci kenn wanu ko sa morom ñu yëkkatee doo bala ñu bala ñoo àtt nag danañu yónni ilimaan dana yónni laaj te iran ndaw ngeen xam ci moom ñu ne ah moom de doy na waar buñ ne doy na waar jeex ña ne ah waaw jullit defuñu ni am na lislaam góor la déedéet bokk yëpp bokk la amul benn jàmm tuuti parce que li tax bëgg nga mu nekk góor bu dee jaam la jaam day ñëw du olele parce que du mën a wax dëgg ñu tànn loolu bu ñeenti ñi matee seede yi mat ñu doog a jël kii góor bi àtt jël soxla àtt loolu lañ yàlla ñu su fekkee amu ko nag ndaw si am ndaw si sa am ñu lu lu lu leer waaye lii kenn xamul fu jëm ci bakken bu ci dee dootu dekki waat ku ci dee jeex na nañ leen yërëm bu jàmm yërëm xale yi te ka gis nga mbir mi mooy ca la am bu ñu dee ñoom ñoo toog ko sànq ñu ngi lay xale yi di fetal xale yi di dóor xale yi di gaañ xale yi xale yi yaa ci fee ñuy tuumaalaate ku nekk naan yaa tax mu lay diw yaa tax am solo kon na ngeen góor góorlu projet boobu ngeen def ci seen kéemtalaay kattan fexe ko fee te ngeen bàyyi ci xel yàlla suñu borom bàyyi leen ci xel yàlla suñu borom lu ci dugg lu ci dugg yàlla na ko seetee bàyyi leen ci xel yàlla sunu borom yàlla rek a mat bàyyi xel waaye li téembi téembi bàyyi woo xel yàlla bu ëllëgee mën nga jàmm ko kon lu ci waay di wax baa nga ko ci jëf na ko xam boo ko xamul lu ci dugg mais yoo xamoo ci lii dara wax ci lii wax ci lii wax ci la pour la nag ndax bëgg faral keneen looy faralaate kon góorgóorlu leen projet boobu daal dañu ko dakkal nu mu gën a gaaw le 23 daal nañ ne saye saye saye mu waaye projet bu yow da ngay xool ne bi ci dee sa doom bokk ci sa doom bokk ci bi sa doom bokk noonu nag mu ne doomu jàpp rek a ciy dee xam ñu rekk ci dee loolu na nga di ko seetaan pour lan kon nañu ko àtte mu jeex coow réew ñu bàyyi réew mu dal réew mi nag du tàkk du tàkk nag du tàkk mukk ba àdduna noonu parce que Serigne Touba moo moo ñu réew mi Seydi Hadji Malick moo ñu réew mi Seydina Limamou Laye moo ñu réew mi Mame Bour Kounta moo ñu réew mi liñ ko mooñee ba mu mooñu mënuñ ko fee bàyyi ab xale di ko yàq kenn ko yàq kenn mënu ko yàq réew mi du tàkk ak lu mu métti métti du tàkk waaye réew réew mi muy tàkk réew mi Sénégal yi li mu toll bu koy taal ah ah xanaa bala moo taal da nga sonn sax boo doon jël àll bi def nii rek di taal dëgg xanaa bala ngaa daje réew mi sax dee donc ngeen góorgóorlu rek. nekk leen xale yu nekk pré nekk exemplaire ci seen biir morom nekk nekk nekk nit nekk exemple ci seen biir morom na ngeen góorgóorlu bu baax loolu rek laa ci doon man euh, ndax ci moo waxtaan waa nii euh, xanaa jox Thierno Seydou Tall mu ubbi nga def kii nag juróom fukki junni la kala ma ko joxoon na ma la jox juróom fukki junni juróom fukki junni yi binta caam moom la ko jox Mouhamed Ndiaye la ko jox